yooni yooni yooni laata wa baani ilmil tanaasana barke borom Tuuba laa hawla walaa quwwata rabbi asrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bu gën a màgg te gën a sell ci nuyoo jullit ak mbokkum jullitam di leen siyaare di leen balu àq tey bal ñépp àq di leen ubbee samay wax ñaan mbooloo mi fi tase kenn ku ne nga wax ci sa làmmiñu bopp ne Seex Seydil Moxtaar yàlla na ko fi sama yàggal te may ko ak wér ba lépp lu mu nisara liggéeyal Sëriñ Tuubaa li mu ci tàmbali mu àggale ko te liggéey yeneen liggéey yum tàmbalegul te yàlla bàyyi nu ci ginnaawam te may nu kàttan gu nu ànd ak moom ci lépp lu mu bëgg a liggéeyal sëriñ Tuubaa ci barke Cheikhul Xadim barke Cheikh Ahmadul Amin defe leen ko noonu ma ko waxee kenn ku ne na wax lool yi ci lam war nañu fa nu toll ni nu farataale waxtu yu juróom nu farataale ko ñaanal Cheikh Seydil Mokhtar ndax dafay jëmm joo xam ne. Eh, yombul ci bindee fi sans borom yi ndax moom day bim toogee ci jataay sëriñ Tuubaa yàggagut waaye def na ci lislaam def ci njabootu sëriñ Tuubaa gi loo xam ne bariwul ku fi toog ku ko yàlla séddoon ndax li nga xam ne mooy li gën a jafe mooy ne ko sama borom santaane niti lislaam yépp mel ni pari kurus loolu mooy li gënoon a jafe te bi Cheikh Seydil Mokhtar toogee rek bi mu yëkkatee kàddoom rek la ko sama borom daal def kon mën naa ne kooku borom kun fa yekkoon la loolu moo tax ak yeneeni liggéey yu bari yum liggéey ci lislaam liggéey ko ci kër Serigne tubaa loolu moo tax ma bëgg kenn ku nekk ñaanal ko ci sa ci sa làmmiñu bopp ndax mbooloom jullit bu ñu tasee bu ñu maasee ñaan yàlla lenn ñekkut ci kenn ku yàlla rus ba su ko ñaanee mu nangu te bu nangoo nangu walla ñaan yépp kon Cheikh Seydil Mokhtar yàlla na fi yàgg te wér gannaaw loolu nu dellusiwaat di leen jottali nuyoo bu bàyyi ko ci sëriñ Cheikh Fall Diop xalifatu sëriñaan Diop jaar ci sëriñ Moustapha Diop jëwriñ ba yegsi ci nun mbooloo mi fi tase ak képp ku yéene woon a teew si ci jataay bii te yàlla dogalu nga mën a teew si di leen xamal sëriñ Moustapha mii toog di jëwriñu sëriñ seex Fall tooge jëmmam yor kàllaamaam yor jëfi sëriñ Cheikh Fall moom dey wax na ne sant na yàlla tabaaraka wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sant mbooloo mi fi teew ñépp góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn nee nag lim leen sant yàlla moo di li gën a jafe da ngeen koo defal muy woote ngeen wuy si ko te wuy si gi da ngeen a waaye jeexagul ne dana dem ba nëgë ni ëllëg bu soobee yàlla mu door a ñaanal mbooloo mi mbooloo mi door a yeewi ko delluwaat ci seeni itte tey dégluwaat ndigal ba yeneen jamono e, sëriñ e, sëriñ Abdou Khadim noo ngi lay nuyu di la siyaare di la ñaanal yàlla yaa ngi njabootu Cheikh Mouhamadul Amine Baara gi fi toog sans borom guddal seeni fan wéeral seen yaram ba yéen it kenn ku ci ne eh, sa wajur wa nga wa nga toogal lu mu naaloon nga àggale ko ba liggéey sa liggéeyu bopp di nuyu Serigne Modou Baara moom Serigne. Abdul Xadim ak sëriñ Mourtada noonu ñu ko waxe di nuyu it conférence yi nga xam ne yi ñoo fi nekk ñoo fi teew te kenn ku ci nekk jëloon kàddu kon noo ngi nuyu ki njëkk a jël kàddu ba ci ki mujj jël kàddu mënuloo lim ñëpp waaye yéen ñëpp déglu nañu leen déglu boo xam ne déglu xol la ak xel waaye dégluwuñ leen déglub tulaj déglub gàmb lañ leen dégloo ndax lii ngeen fi wax tey nekk na di loo xam ne eh, taata nañu ko te su ëllëgee danañu jariñ te it kii ngeen doon waxtaane di sëriñ jëmm joo xam ne mënees naa wax ci moom la nga xam waaye mëni su ko jeexal ndax li tax mëni su ko jeexal moo di am na kilifa gu mag ci yoonu sëriñ Touba wax na ne Serigne ñaan jëmm joojee ne wëyuram fa mu doon liggéeye fa mu doon taxane fa la Serigne ñaan fortoo waaye nag ba sëriñaan ñaan forto ba noppi dafa ñaan boroomam lépp lu ko san borom na ma na ma faye nag ko dencal ba yemal xiyam mu ramoo ko euh, euh, bindee fi daldi wax ne sëriñaan ñaan day mbiram li ciy feeñ ci àdduna ni ma leen ko mën a misaale mi ngi mel ne yow mu duy sa saako gerte ba mu fees nga takk ko dindi benn dott golo bi nga xam ne boo ko xollee benn kemb ci génn nga teg ko ci buntu ba ne li nekk ci saako bi lépp ngi nii nga seet nag ba xam benn dott golo boobee ak la saako ba amul lu ca ëpp kon sëriñaan eh, dafa daxañoon mbiram fii ci àdduna be mbiram ëmpal nañu bari waaye nag léegi alhamdulilah rabbil alamina sët yi fas nañu yéene feeñal sëriñ ñaan ba ko xamul woon sëriñ ñaan xam ko yàlla na ci yàlla ak yonte bi sëñ Tuubaa dooleel ci barke Cheikh Mouhamadul Amin kon bokk yi ni ma ko waxe ci njëlbeen sëriñ Moustapha ak njabootu sëriñaan gépp maasa nañ ci sant leen gërëm leen ñu ngi maas mi ngi maas itam ci ñaana leen yàlla nii nu fi teewe ren te teewe fi daaw nu teewe ko fi nëgëni déwén ak déwén yu baree baree bari te kenn bañ a manqué te ku fi indi jàngoro yàlla na ko sama borom saafara muy jàngori xol muy jàngoro yaram muy bépp jàngoro bi fa waay andi yàlla na ko yàlla ak yonent bi Serigne Touba saafara ci barke Cheikh Mahamadul Amin diggante Serigne ñaan ak Cheikh Mahamadul Amin nag daanaka euh, li ci motoon wax lépp wax ngeen ko waaye Serigne Diop ñaan de moo ma wax ne Cheikh Mahamadul Amin. boo gisee mu laaj sëriñ Touba sëriñ ñaan ba sëriñ Touba yëkkati sëriñ ñaan jébbal ko ne jamono bi sëriñ nekk ci daara ji di liggéey di tërbiyewu Cheikh Mahamadul Amin danaa def saabu soxlaa tukki day àbb sëriñ Touba ndaw la ko yenul waxandeem ndaw lu ko sëriñ Touba abal mu waru fas yàlla gaal goo xam ne da def na ponk la bank ci biir gaal bi ne su ko defee bu ngeen di génn dëkk bi Cheikh Mahamadul Amin da wax ne la dawal damay dawal fas te ba la fiir la kooka soo demee tuuti ne sëñ bi ki ma booleel du nit te ku dul nit nit mënta ànd ak yow delloo ko waxandeem wëlbati ko ñibbisi ne ba bis mu àggu àbb ku baax ki ndaw mu abal ko sëriñ ñaan mu tuuti lool sew lool cheikh mahamadul amin ngeen ko waxa ndawa ñu génn mu ne ko mahamad ay ñaana mu ne ko mbàkke mu ne koy dawal day ay damay dawal fa te ba la jotee fiir la day sëriñ Diop ñaan nee na sëriñ ñaan nee na ko ba ma cheikh mahamadul amin waxee lool dama ne ah tey de ko baax ki boole dama ku dul nit te ku dul nit kat ku ànd ak moom te bëgg sa ànd ak moom rafet doo bàyyi sa bopp ci nite mais daal ni wékkat ak rom wékk ko ci garab daal di dañitu ko waxande wa sëñ baara dawal fasu topp ci moom nee na ñuy daw ba yendu jot ñu dëkko dëkk yendu ngoon jot nu gont sëñ baar naati ko noona mu defaat na mu defoon ba fanaan jot ñu fanaan asamaan set ñu xëy sëñ baar nattooti ko noona ba yendu jot ñu yendu ne ngoon jot ñu gont sëriñ baar da koy jaana mu ne ko mbag mu ne koy doxalal ndànk day dama doon seet dama rekk day te li ma doon seet gis ci yow sëriñ Jóob ñaan nee na ma yoon woowee ba ñu ñibbisee la sëriñ baar na sëriñ Tuubaa ñaan mii dama ba nga sédd ma ko sëriñ Tuubaa na ko alale bàyyi doom daal di woo sëriñ ñaan yeewi ko daal di koy jëbal Cheikh Mouhamadou Amine bis boobee moom la ma Cheikh Seydil Maxtaar jox ma di ko woote ci kub kub gee kero gaaw rekk la kon loolu ñi doon wax xëy na seen xam-xam àggu ca woon waaye nag man fu wér laa ko jële lépp lu ma wax ci sëriñ Jóob ci sëriñ ñaan rek damay wax ni sëñ Diop ñaan laa ko jële jëliwuma ko ci kon fa tabaarakallaahu ngërëm loole seex sëriñ ñaan amoon ci sëriñ Touba ak ngërëm li mu am ci sëriñ Baala lépp yàlla na ko yàlla nangu te sotti ko waamew xéewal ci sunu kaw ci barki Cheikhul Khadim barki Cheikh Mouhamadou Lamine barki ñaan Diop sant nanu leen gërëm nanu leen ngërëm lu màgg ngërëm lu sell ngërëm lu tedd ba li sunu yéene ci sunu xol sunu làmmiñ sax jot na ci ci mën ko jottali ba mu àgg fi ko sunu xol téye ñu ngi jéggalu ñëpp nag e, di jéggalu sëriñ bi nga xam ne moonu yónni e, lu ci dëng ñu ko jébbalu jéggalu lu ci jub nu ji di ci sant sunu boroom jërë ngeen jëf jasaakumullah wa ana xayri jasaay kon mën na jox sëriñ bi mu ñaanal mbooloo mi nu yeewi ko bu subaak jàmm ndax bu subaa it ci lii la xëyaat ci la yendu ba ba ñuy jëli timis jërë ngeen jëf jasaakumullah ala dina amin sayidina muhammadin il makin wa ala alihi wa ashaabi ma yamin wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi din fa idin wajjahu ilaykum tahiyatan tayyibatan mubarak min jaza wa hiya asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di leen siyaar di yëgul waat bu baax itam kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati si sunu kanam kilifa yi fi teew yëpp yëpp leen jégalu bu baax te di leen siyaar euh, comme niñ ko baaxoo di waxee rek da di ndigal sa dañuy faral di dégg saa su ne ñu naan caabi la bu appee du tijji waaye bu manqué itam du tijji kon dañuy dellu di tolloo rek tey ñaan sunu borom mu antu ko. di dellu di gën a sant waat bu baax itam euh, si jotaay bi ak kilifa yi nga xam ne teew nañ fi yëpp xam nañ bu baax xat jamono ji ak yitte yi ni mu baree képp koo xam ne jaral na la déplacé wu dagg itam yëpp ñi nga xam ne dañoo dagg seen yitte yëpp déplacé wu ngir bis bi ñu jëm sëriñaan ak ñi nga xam ne ñoo taxaw itam ñun ñu ngi mënuñu di dellu di gën sant bu baax a baax te ñu ngi sant mbooleem yi nga xam ne teew nañ fi ñëpp si turu daayira bi du dellu du jar ñu si delluwaat comme si Mouhamed Dieng lim na ko di dellu di gën a sant bu baax itam suñu way wayjur yi ñu suñu baay yi ak suñu yaay yi ak mbooleem suñu mag yi nga xam ne jàppale nañ ñu ñoom ñëpp bu baax si bi xam nañ ne daaira bi ay tuut tànk rek ñoo fi nekk kon buñ mënee taxawal lu mel nii eh, am nañu am na ay kilifa yoo xam ne ñu nekk seen ginnaaw la di leen jàppale kon mbooleem suñu kilifa yi nga xam ne ñoom ñu ne ñoom ñu bokk nekk si kër gi sa ñuy taxaw moo sa bépp liggéey boo xam ne liggéey bi ñu am la si kër gi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gën a sant bu baax si jàppale googu nga xam ne ñu ñu ngi koy jàppale. Euh, di sant bu baax itam mbooleem rajo yeeg télévision yi nga xam ne teew nañ fi ñëpp euh, ñu commencé si Modou Assane suñ Modou suñ suñ ñu sant bu baax itam kilifa yi nga xam ne jàpp nañ bu baax baax si bis bi. muy sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Xaarim Awa Ba ñu ngi koy sant bu baax a baax jàppal nañu bu baax a baax si bis bi. di sant baax itam sëriñ moo Modou Aïssa ibnu Cheikh Seydil Muxtaar di sant baax itam waa kër gi yëpp waa kër Cheikh Seydil Muxtaar gi yëpp di sant baax itam sëriñ Mbàkke Abdourahman mi nga xam ne moo ñu doon defal waxtaan wi waaye di sant itam sëriñ Moxtaar Oumy Mbuub mi nga xam ne moo bàyyi ko Diso FM ak mbooleem personnel ba fa bàyyi yëpp waaye di sant baax itam sëriñ Moustapha Ndiaye Istikhama ak mbooleem kuréel yu seqal liggéey bi yëpp di sant itam sëriñ Modou Assane Ndiaye moom itam ku ñu yàgg jàppale la si liggéey bi nga xam ne moom la ñu amal di sant itam waa Lamp Fall FM di télévision bi ak rajo bi ak Ahmadou Diong Baye Jagal RTS ak alachan touba point com sëriñ maam Thierno teewal leen fi ñu leen di sant bu baax itam seen taxawaay euh, di sant itam waa TFM ak sëriñ maam Baara Mbacke ak waa Xidmatul Xadim ak waa TSL ñun ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax baax si taxawaay bi ak jàpp gi nga xam ne ñu ngi ñu koy jàpp si bis bi waaye di sant baax itam Hizbut Tarqiyyah Daaru Xuddoos comme ñu koy daan faral di waxee saa su ne jàpp gi jàppale gi nga xam ne ñu ngi ñu koy jàppale si bis bi chaque année seen loxo di gën a yokk lépp lu ñu daan def ak ñun ñu koy gën a yokk ñu ngi leen di gën a sant bu baax a baax si seen taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw bu baax a baax waaye di sant itam daayiratul Samadatu Abrar bi nga xam ne sëriñ Abdul Aziz Mbàkke moom sëriñ Fàllu moo ko jiitee du suñu lépp chaque année moom itam mu leen fi yebal ñuy ñëw dañuy taxawle ci liggéey bi ñun amul seen fay ñu leen di gën a sant bu baax a baax ci turu daayira bi mu mel ne itam bis mel nii day baax ñu fay amal ay xeeti jàng yoo xam ne day am njàng moo xam ne dana gën a amal mooy yaakaar nañ ne njàng mi itam day lu am solo comme mel ne bu ñu ko dee taxawal xëy na waxtaan yi ñi nga xam ne moom lañ fiy def dana tax ñun ñun tuur taaka yi ñu gën a xamaat fan la teg suñu tànk dana tax itam ñu gën a xam kilifa googee moo doonoon kan ak lan la doonoon si yoon bi ak moo doonoon kan ba ñun ñu jéem a jaasi ay tànkam ba bu ñu melul mënul mel na moom itam jéem koo jege kon waxtaan yu mel nii mel na lu am solo la waaye itam day baax ku ñu bu ñu fàttali yu mel nii ñuy am loo xam ne la jagleel leen ko muy lim yu takkoo takk muy kaamil yi mën na ne trois cent trois cent un ja wàccee nañ ko si ay kaamil alxuraan maraaxi bi itam jàng nañ si lim bu takkoo takk lu toll si ñetti junni yu manqué tuuti mën nañ ne jàng nañ ko si si jaalibatu maraaxi ak yeneen xasida yu bare bari yoo xam ne teewluwuñ leen fi ñu toog nii kon kuréel yi nga xam ne ak daara yi nga xam ne ñoom ñoo ñu doon jàppale si wàllu woowu itam ñu ngi leen di gën a sant bu baax a baax si taxaw gi ak jàppale gi nga xam ne ñu ñu koy jàppale saa su ne di gën a fàttalee bu baax a baax itam comme noonu ko ñenn way si waykat yi di waxee li nga bokk ak li nga moom ak li ñu la boole du benn muy lu wér sa ñu itam ñu gën a xam loolu bu baax sa mel na ne itam bari na si njaboot gi ñoo xam ne xam nañ loolu bu baax a baax kon ñuy gën koo bàyyi xel bu baax a baax sa xam ne bis xay na bari na lool waaye benn bis bi moom du benn bis boo xam ne bu ñu boole la du bis boo xam ne itam bu ñu bokk la mais bis la boo xam ne bu ñu moomal suñu bopp la ñu njaboot sëriñaan sa buñ taxawee ne itam yaakaar naa ne croiser la bras doonu ne ñeneen ni jàngur ñooy bàyyi ko sa àll ba dikki di ñu fi defal si dara kon ñi nga ñi nga xam ne ñooy njabootu kër gi ñoo si war a taxaw taxaw yi nga xam ne moom lañ si war a taxawee ba keneen kuy bàyyi ko si yeneen bërëb dikki di ñu si jàppale si fekk ñun ña nga sa woon sa lañ war a nekk euh, sa sëriñ bi itam dafa waxoon wax di la waajal la si na dama fii xidmati wax bu la maaram euh, mu faj la waajal ñi nga xam ne dañuy sax si di ma liggéeye sa njort nañ ne ñun liggéeyal Serigne Touba mooy liggéeyal Serigne Serigne ñaan ak mawooleem kilifa yi bu baax yi nga xam ne ñoom la nekk ndoloon ci keppaaru ku tedd ki sa dañuy day mel ne boo bëggee dugg ci bërëb ba sa jaaroo ko saw yoon wa da mel na ne mën nga faa jëlee ay jafe-jafe yu bare bëri kon day baax bu ñu dëgmaleetee yenn mbir yi wala bu ñu bëggatee dugg ci biir yenn bërëb yi ñu koy jaar sa bunt ba nga xam ne fa lañ ko war a jaar te ñun sunu buntu Cheikh Mouhamadou Lamine wala sunu buntu ak sunu buntu Cheikh Mouhamadou Lamine mooy Serigne Ñaan mooy suñu buntu Cheikh Mouhamed Lamine Bara di suñu buntu itam si sëriñ ñaan kon day baax itam lépp lu ñuy def wala lu ñuy wax ñu koy commencer si si moom euh, euh, bu ñu bëggee dugg si bunt bi sa jaar ñu si bunt bi di bëgg a tëbu miir wala yu mel noonu mel na ne jafe-jafe yu baree bare mën a mën mën mën saa juddoo dam xaj na sa mën ngaa wodd itam ñu teg la sàcc wala xale yeneen yu baree bare xaj na sa kon day baax bu ñu bëggee duggati si yenn barab yi itam ñu koy jaar lenn lu ci nekk ñu koy jaar fa nga xam ne fa ko war a kon ñu ngi dellu di gën a sant bu baax a baax si mbooleem ñi nga xam ne jàppale leen nañu bu baax a baax si bis bi di gën a soññiwaat bu baax itam daayira bi ñu gën a pësteefuwaat gën a yokk takkaat seen laxasaay xam ne dañuy door door a commencé si liggéey yi nga xam ne moom lañu liggéey bi nga moom lañu fi tax doonu ne fi lañ seen a yem commencé ndee gun rek la commencé fi lañ bëgg a yem lépp loo xam ne lu ñu war a liggéey sëriñaan la dañeen sa dugal suñu loxo incha allah bépp bërëb la itam boo xam ne sëriñ ñaan moo ko sanc am nañ yéene taxaw sax feeñal fa suñu yéene bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah bis bi daal tàmbali rek waaye suba lañ koy wéyal suba na ñëpp teel a ñëw amin Mbàkke amin